asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. président mu asalaamaaleykum ñoo ngi yëkkati kàddu nuyoo yi gën a kawe. nee ñoo ngi yëkkati kàddu nuyoo yi gën a kawe. di ko jébbal ni nga ko waxee suñu sëriñ suñu xarit suñu wëllëre koo xam ni yàlla moo jëmbat cofeel suñu diggante di sëriñ Bass Abdou Khadre di ko ñaan mu jot ñu ko Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ak bépp mbokku taalibe. nee na nuyoo boobu nag la muy rëy rëy ak délégation bi nga xamante ni moom la àndal ak autorités yi nga xamante ni ñoo ma àndal ak responsable yi nee na koy jël nag di ko jébbal xaritam wala réem wala réem gu yàgg goo xamante ni sëñ bi rek moo ko motivé sëriñ bi lekk lañ koy seereel muy sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdou Khadir. di yeesal ci moom suñu cant ak suñu taalibe ak suñu cofeel nee na di yeesal ci moom nag sunu cant ak sunu taalibe lu njàgg a dégg ak sunu cofeel ci sëriñ bi di ko jébbal sëriñ Basiru di yokk suñuy ñaan ci suñu borom nee na di yokk nag suñu ñaan ci suñu borom yen bi nga xam ni suñu borom yen na ko ko sëriñ Touba yen ko ko nee na yen bi nga xamante ni ya suñu borom yen na ko ko sëriñ Touba yen ko ko te yaakaari taalibe yëpp nekk ci. nee na te yaakaari taalibe yëpp nekk ci. yàlla na woyof toy ci moom. nee na yàlla na woyof toy ci moom. te xam nañu ne waajtaay wi ñu ko waajal bi bi laata egg nee na te xam nañ ni waajtaay wi ko waajal laataa yen bi yegg si. dana yombal mu woyof ci moom lool. nee na dana yombal mu woyof ci moom toy. man nag sama cofeel rek laa ñëw fedd li si. man nag sama cofeel rek laa ñëw fedd li. ak sama ziyaar. nee na ak sama ziyaar. ak ndokkeel ko ci bis bi. nee na ak ndokkeel ko ci bis bi nag. ndokkeel ci mbokku taalibe yëpp. nee na ndokkeel ci mbokku taalibe yëpp. di ñaan suñu borom mu yàgg noo kattanal. nee na di ñaan nag suñu borom mu yàgg noo kattanal. saa yu egsee. nee na saa yu egsee. ñu mën a ñëw jooxewaat lii ñu fi dox si. na ñu mën a ñëwaat jooxewaat lii nga xamante ni moom lañ fi jooxe tey muy ak taalibe ak siyaar ak doom ci biir kër gi. cant gi daal am na fu mu tàmbalee wante amul fu mu yem. nee na cant gi daal am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. wante moom bir na ma ne xam na ne li may wax ci sama xol ko tibbee. nee na ca moom moom sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdou nee na ko bir na ko ni lii ma wax ci sama xol laa ko tibbee. aleykum wa rahmatullahi taala wa na ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp. nee na ci njiital Idrissa Seck. nee na mi nga xamante ni mooy seen kilifa nee na ngeen ànd ak moom nee na ak ma fekk mboolem délégation bi ma àndal yépp nee na sëriñ bi nee na bàyyiwuñ kenn nee na biñ ci tuddee de ci faal nee na mi nga xamante ni moom la fi faral di yebal si nee na ak mustafa Mbay nee na mu mën a yóbbaale ñépp nee na di ko nuyu bu baax a baax nag nee na ci ni mu ko baaxoo defee nee na bu waxtu wi jotee nee na mu bàyyi yitteem yépp ñëw nee na ziyaare si nee na màggal si nee na di rafetlu bu baax nag kàddu yi nee na li ko président sa wax Seck waxee rek nee na moom sëriñ Basiiru noonu la ko jàppe nee na kon ñu ngi koy feddali nee na diggante bi muy kóllëre gi nee na nga xam ne dafa yàgg lool nee na jiitu na lii lu yàgg-yàgg nee na ndax 2004 nee na ñëw na Touba nee na siyaare si Cheikh Saliou Mbacké nee na bàyyi ko fi dem ca Cheikh Mamadou Mourtala nee na bàyyi ko fa ñëw këram moom sëñ Basirou nee na ba mu fa jógee dañ daal ñibbi nee loolu yàgg na nee na kon colère gi nee na du tey démb la nee na te sa sàmm na ko bu baax nee na ndax moom xam nañ ko bu baax a baax nee na kon ñu ngi koy ñaanal bu baax nee na di ko sant nee na di ko gërëm nee na di gën a feddali bu baax nee na di nuyu nag sama sët bii nee na di Serigne Moustapha moom Serigne Moussa Nawel moom Serigne Moussa Nawel nee na mu bàyyi koo ci waajuram nee na sëriñ mussa nee ndax sëñ Moussa nee na digganteem ak Idrissa nee na Serigne Moustapha Bassirou moo leen boole woon nee na mooy li dox seen diggante nee na mu def ko waajur nee na def ko sëriñ nee na def ko kilifa. nee na sëriñ Moussa itam nag nee na mu jàpp loola ci moom nee na ndax sëriñ Moussa naawel kenn ku ne xam na jikkoom nee na ndax wàllu politique sax moom du waaw doxinam nee na waaye leen boole ne nee na sëriñ Touba ak seen waa ak waajuram moo leen boole nee na sëriñ Moustapha Bassirou nee na kon bu ko booleeg sëriñ Moustapha nee na loolu yàgg na nee na jamono sëriñ Saliou ba naga nee na saa su fi ñëw ne nee na wala muy siyaare si kenn nee na ki fi nekkal sëriñ Touba nee na moom la ko daan booleel nee na mu ànd moom ne nee na ndax moom sëriñ Moustapha mii nee na da koo jàpp nee na ngir yàlla nee na ci amu ci calcul amu ci dara nee na daf ko mel ni ku ko jàppal ku mu jàpp ndeeg ku mu bokkal ndeeg bàyyi nee na noonu rek la ko jàppe nee na kon moom Serigne Moussa ñu ngi koy ñaanal baax neena ndax sëriñ Moussa ni leen yare nee na mooy Pastef dëggu nee na ak liggéeyal Serigne Touba nee na njabootam gépp loolu leen yare nee na kon yàlla bu ngeen ko wàcc mukk nee na dal nañ ci xel na rafet nañ njort ni du ngeen ko wàcc mukk nee ñu ñëwaat ci Idrissa ba léegi nee diko di ko rek nee la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxon nee bi election yi jexé nee moy jam akuk dal la ko lolu kat nee moy mooy ñepp ndax am rew nee la ca wara a jiitu moy lolu nee na rawatina ñoom ñi mbooloo mi topp seen ginnaaw nee na képp kuy bëgg fitna cim réew nee na da nga fa amul responsabilité nee na kon nag ndokk nee na bi ko ko sëriñ moodum taxaa waxalee boppam nee na ci Idrissa dégg na ko it nee na ndax mi ngi koy jëfe nee na kon nag loolu nee na ñi ngi ko ciy soññi nee na ci lépp luy indi ak dal nee na ak luy indi ak rafetal nee na ak luy andi ak jàmmoo nee na ci ñoom ñi ko séq nee na ndax loolu mooy njëriñul réew mi nee na kon yàlla na ko yàlla def nee na def ci barke def ci naataange def ci xéewal def ci mucc asalaamualeykum wa rahmatullahi